Makka duñ ko jaale waaye yàlla yóbbu Ahmadul si yóbbu Ahmadul Makki du bàyyi sunu maam Cerno Ibrahima kële di xaadim ci yaari xew wi le ko yetteel fa daarul mu fi xew wi le dimbetteel ki ala seydi ma jooy le suuf ibran awa tafima أبكي على خليل إبراهيم eh, baax a baax a kilifa yi ci kaw jotaay bi xam naa kàddu yi sax dina gàtt ndax ndem day kàddu yi xëy da ci am ci liggéey bi loo xamante ne suñu borom da ca da ko jaarale woon ci ñun. dina jaar ñu ñu sant mbokk taalibe yi ñu fi àndaloon ci ci teewaayu kilifa yi sàkk ci ñoom it ñu ñaanal leen bu baax di sant suñu borom bu baax bu ñu may yitte dogal ci ñu nit euh, lépp loo xamante ne dañ cee dugal suñu kàddu wala dañ cee engagé dinañ fexe ba yitte ja ca war yépp ñu motale ko ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax ci loolu. di sant yi mbokk yi ñu ci àndaloon yépp te nekk fii ci dëkk bi di ci jiital njabootuk sëriñ Touba gi fi nekk tàmbalee ko ci sëriñ Mahmadan moom sëriñ Murtala mi fi jóge léegi te bu ñu ko tuddee rek day yóbbaale njaboot gi fi nekk yépp di ca teg comité d'organisation Magal Daaru Muxti gi ci sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xudus jiite ko doomu ma ngi ni toog sëriñ Ahmadu di taawam ñu ngi koy sant bu baax ci ab liggéeyam ci wetu sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom kattanal ko te sàmm ko ba léegi sëriñ bi di séntu ci moom saa su ne muy gën a rafet di sant bu baax sëriñ Xaadim ci liggéeyam ci communication magal gi saa su ne diir bi ñu koy waaj dina gàtt waaye dina ciy def kem kattanam ba suñu borom di ko ci tawfeex di ko ci tawfeexal mu ci am saa su ne lu kawe jortam di ko sant bu baax a baax di sant waa kër Serigne Abbas yëpp ñoom ñooy suñuy sëriñ euh, ñoom mënuñoo sori ci ñoom ñu jégalu leen ñaanal bu baax suñu borom sàmm leen ndax yàlla xam na ne muy mag muy rakk ci kër Serigne am ci kenn koo xamante ne bëgg gi ñuy xool ci sëriñ bi ak Euh, def gi ñu ko def mu suñu sëriñ la ñuy xool ci ñoom ba tax na ñu ngi leen ñan suñu boroom sàmm leen ñoom ñëpp na leen ba aar leen kaaraange boo xamante ne ñàkk kaaraange dootu ca dootu ca dolleeku di sant waa kër Serigne Dame te di ci tudd Serigne ay dara ci liggéeyam bu rafet ci wetu Serigne Abbas ci taxawaayam bu rafet bis bi it da ci doon jokkoo ñoom saa su nekk yaboon na fi ak njabootam. ñi nekk dakaar ak ñi nekk Ngumba Ngeewul ñu jàpp ci bis bu baax a baax dafa am gàllankoor waaye amoon na yeneen teew ci jotaay bi di sant mboolem waa Daaru Moxti jëpp te mooy njabootu borom Daaru Moxti day kenn dañuy lenn Daaru Moxti benn bunt la benn bopp la ba tax na bu ñu ci tuddee ñenn ñi rek dañuy yóbbaale ñu ci des ñëpp di ziar bu baax Serigne Mame Thierno Serigne Zoubair muy kilifa jotaay bi di ko jox wàccuwaay bu baax a baax cant gi it euh, ñu ci ñu ci àndaloon ci liggéey bi di ci jiital taalibe borom Daaru Muxti yi muy daayira yi nga xam ne ñoo fi nekk te seen buntu ci Serigne Touba bi Mame Thierno Birahim bi ñu jàppee bis bi boobu ba léegi ñu ànd ceeg ñoom ñu wane ci taxawaay bu mat sëkk def ci seen yitte gën ñu koo bëgg ñu ngi di sant ñoom ñëpp du ci jaar bi ci jaar di sant euh, ni mu ko waxee famille Gora Fall di ci tudd Serigne Fall ci liggéeyam bu ci màggal gi wala ci événement borom Daaru Muxti rek sëñ ma ñoom ñi may àndal wax naa leen ko nee naa leen même Dakar bu fa bu événement bu dara am saa su day dox ci ay yitte ci Daaru Muxti lépp lu ab dëkk war a am Daaru Muxti bañ caane kenn moom taw fex bi la ci borom Daaru Muxti di ko ñaanal suñu borom gën ko yokk xewal bu baax a baax a baax ndax it mi ngi ciy def mi ngi ciy def am solo mi ngi ciy def ci war a def di sant famille bi yëpp Serigne Sall soxna Ndeye Maram bu ñu leen tuddee dañu yóbbaale ñi ci des ñëpp di sant euh, alal ceeri gi ñu koy defee ñu fi dëkk ñoom ñëpp di ay taalibe ñëpp gën ñoo bëgg mbir bi di leen ñaanal suñ borom taxaw leen bu baax na leen di wax it képp ku ñu àndaloon ci liggéey bi xam naa foofu lañ koy daanale suba incha allah màggal gi jub si na xam naa moom lañ fi defaat di sàkku ñu fi waxtu wi ñu fi daan teew ñu dajawaat fi ñaan suñ borom. màggal gi ñu fekki ko te tal ko Serigne suñ borom gën koo yàggal te wéral ko te mu fekkee màggal yu bare bare bari <coughs> suñ boroom gën ko kàttanal bu baax a baax di sant bu baax ñi fi teew ñëpp di di gërëm ñëpp xam naa kàddu yi moom lu ci dëng rek ngeen xam ne ci ñun la lu ci jub ndimbalu dimbalu suñ borom la

ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaan di waa di sant presse bi fi teew gën jugee jugee Ndakaaru ñenn ñi nekk ci dëkk bi di leen sant bu baax ci seen taxawaay bu rafet di ñaanal ñëpp jàmm euh, maa ngi jégalu <coughs> euh, Serigne Abdou Mbacké moom. auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. ñu ngi dellu di nuyu mboolem jullit yi fi teew yépp di jiital ci nuyoo bi sunu bunt ci sëriñ Tuubaa di sunu sëriñ muy sëriñ Abbas Mbàkke ñu ñaan sunu boroom yàggal ko fi te mu ànd ak wér di jël nuyoo bi ak siyaare bi di ko teg ci loxoom tegal ñu ko ci loxo yi Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi fi nekkal fi Ahmad Bamba Xaadim Rasul di jégalu ci kàddu yi nag xam dana gàtt lool. ndax euh, li ma a wax lépp ñi fi jiitu wax xef na ko li ñu dégg it ci borom Daaru Muxti ku ko musta dégg jàpp naa tey jii dégg am nga bind bopp mm-hmm. bala borom Daaru Muxti ñoree mm-hmm. wala nga bokk ci moom jàpp nañu ne am nga bind boo xam te ne soo ko jariñoo duutoo tële àdduna duutoo tële alaaxira ndax lépp ngi ci luy jagal àdduna ak alaaxira bu fekkente ne bokkuloo ci moom it dangay ngay lu baax danga xam ne waaju baax la woon jàmbaar la woon ku taxe woon lislaamam la ku taxe woon Sëriñ Tuubaa la ca loola ngir mën caa jariñu bu fekkente ne it bokkuloo ci yoonu murit waaye dégg nga njàmbaar gi mu def te muy ab sénégalais bokk ci nit ku ñuul war naa tax nga roye ca loola ngir nawe ko jëmmi africain bi nga xam te doon na ko wala sénégalais bi nga xamante ni nekkoon na ko kon ñu ngi sant mbooleem ñi nga xamante ni nii jël nañ fi ay kàddu waaye nag di jiital ci cant googu sëriñ Mouhamadou Mbacke mi nga xamante ni nii moo fi nekk tey nekk doomi sëriñ Bassirou Anta Niang ca toog ci taabal ji ànd ak sëriñ Xaadim ak sëriñ Mbaye Guèye la ak euh, sëriñ kii Bichri sëriñ Abdoulahi Diop Bichri ñëpp xam bu dee wax ci borom Daaru Moxti ne Pastef la ciy waxe ak yéene te loolu képp ku lebal borom Daaru Moxti ñun njabootu borom Daaru Moxti ñoo la war a fay waaye sëñ Abdoulahi saa su waxee danga xam ne waxe ne yéene waxe na Pastef waxe na it xam-xam te bari yaa na ñoo xamante ni tey buñ toogee ci plateau yi télévision yi war a leen wala ñu toog ci yenn organes yi am na nu ñu fegg feggale borom Darou Mouhty ba am na yenn wax yooyu doxoon na diggante Serigne Touba boroom borom Darou Mouhty duñ ca yegg ndax complexe wala ragal a egg fenn fi wala nekk koo xam te ne xëy na borom Darou Mouhty ay mbiram safu leen. Mm-hmm. waaye Ablaye Diop loolu fekku ko ci. foo ko digloo rek boo waxee ci borom Darou Mouhty nga xam ne yéene la ci waxe ak Pastef mm-hmm. ak ñàkk kañaan ndax boroom xam-xam bu añaan moom daanaka amul njariñ waaye Ablaye moom añaan dalu ko. Mm-hmm. di sant sëriñ daam mi nga xamante ni tey moo organisé yi fii nun nag ak délégation bi ñu àndal jóge Daaru Muxti dañ fee ñëw ci turu sëriñ Abbas Mbacke boo gisee liitim bokki sëriñ Abbas yépp ñëw ñi nga xamante ni ay doomi rakkam lañ ak doomi magam yi nga xamante ni ñoom la wutu tey ji sëriñ Modou Mbacke mii sëriñ Bassirou Anta Niang ak sëriñ Abbas ñoo bokk wenn jur muy borom Daaru Muxti mm-hmm. sëriñ Mahmoudan mii doomu sëriñ si xaddi la sëriñ si xaddi moo njëkk a nekk xalifa borom Daaru Muxti sëriñ Abbas bis fi sëriñ Cheikh di noppee nekk la sëriñ Abbas nekk xalifa borom Daaru Muxti moom it sëriñ Cheikh Khady liggéey liggéey bu ci Daaru Muxti yaakaar naa ku dem Daaru Muxti tey jii doo sànni say ba tuuti di nga gis liggéeyu sëriñ Cheikh Khady biir Daaru Muxti koy jàmbaar jooju yàlla nañu ko suñu borom fayal dend ak sëriñ Mahamadoon moom sëriñ xalit sëriñ Khalid di caatum borom Daaru Muxti sëriñ Mudu Mbàkke di sama rakk sëriñ maam Thierno mii fi fekk di doomi sëriñ Abbas ànd ak sëriñ Xaadim ñoom ak sëriñ Amsatu ñoom ak njabootug sëriñ Muudu Kara di sunu doom di sunu jarbaat ni ko sëriñ Mbaye Guèye ci la waxee léegi kon yéen waa Louga na ngeen xam ne njabootug borom Daaru Muxti ci turu sëriñ Abbas sant nañ leen gërëm nañ leen ndax dañu wax ne peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca wagg ya mm. sëriñ daam bu dikkee fii man fee taxawal lii man fee wane borom Daaru Muxti ba ay nit di ci jariñu damay wax ne loola su sottee yéen ñi njabootu borom Daaru Muxti ak ñi nga xamante ne nii ñooy ay dëkkandoo ak i xarit ñoo ci jàpp ba lii mel nii kon sëriñ bi wax na ne yéen ñi njabootu Ceerno fii ak dëkkandoo yi ak xarit yi ak bokki jullit yi ci ndigalal sëriñ Abbas mu ngi jël siyaare boobu ak cant googu di ko teg ci loxo yi sëriñ Gora njabootuk sëriñ Gora Fall ca ka nekk ci bopp ba di sëriñ Mafaal ak njaboot gi nga xamante nii mooy njabootuk sëriñ Touba ca ka nekk ci bopp ba di sëriñ Mahmadan moom sëriñ Mourtala di jóge fii léegi di wax ne sant na leen góor ak jigéen mag ak ndaw lépp loo xamante ni déggees na ko fi ci ay kaddu ci loo xamante ni jaar-jaari borom Daaru Muxti la yàlla nañu yàlla mooy xol bu nu mën a taataane ba mën koo dégg waaye yàlla nañ yàlla mooy xolub mën koo nangu ba mën koo jëfee man a roy ci moom su suñ jàmbaar jooju tey ñaan suñu borom fayal nu ko nun nag am nañ aw sas ñu njabootu borom daaru muxti ni ñu amee aw sas mooy kun ne borom daaru muxti mooy sa maam foo nekk war ngaa doon référence kon nag njàmbaaru borom daaru muxti képp war nañ cee roy ñëpp war nañ koo dund waaye nun nii ay deretam nag fur ñu seen màggal ñu ngir ceer noo war na xam bu baax kon suñu bopp ba nekk ay référence ci fépp fun mën a nekk kon sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ca taxawaay bi di jël ñaan googu ak nuyoo boobu nag di ko di teg ci loxo loxoy sëriñ Xaadim bi nga xam ne jii moo fi nekk nekkal fi sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss mu yore kàddoom te jiite comité organisation màggalu Daaru Moxti kon sëriñ bi nee na sant na leen bu baax gërëm na leen mu ngi leen di ñaanal bis bii nu jëm muy màggalu Daaru Moxti yàlla nañ ci suñu borom yóbbu ci jàmm defal ñu ci ay xéewal defal ñu ci ay ndam te lépp luñ ci jëf yàlla na ko suñu borom nangu te yàlla may na fan wu gudd ko wér ba na doon ay taalibe borom daara moxti te nangoo liggéey borom daara moxti waaye nag yàlla jox ñu kàttan gu ñu ko mën a liggéeyale ndax damay wax ne li neex mooy nga am kattan nit taalibe bu dee ñaan na ñaan yàlla may ko kattan te bu amee kattan na ñaan yàlla jox ko xolub mën a jëf te bu jëfeet na ñaan yàlla ñu nangu ko ndax boo amee kàttan te amoo xolub mën a jëf amul njariñ boo amee xolub mën a jëf te nanguwun ko it boo jëfee ba noppi amul njariñ mm. kon yàlla nañ yàlla jox kàttan gi ak wér gi mm. ak xolub nangu te bu nangoo yàlla nañ mën a jëf te buñ jëfee it yàlla nañ ko nangu ci barkeb sëriñ Touba sëriñ Abbas sëriñ na daam mm. sant nañ la bu baax ñun ñi say rakk tey bi ngay wax fii ba sa xol tooy cant googu ñun ñi say mag ñoo la ko ameel ndax lii nga def defoo ko ci ay at waaye jom nga ko defee ak ngor ak nuru sa maam Cheikh Ibrahima Fati ca jom ja ak ngor ga ci 30 yi nga xamante ni moom la ko ci Ahmad Bamba bàyyi woon yoonu murid ak wenn neuf ans yooyu ñu nga xamante ne nii day ñaari version wane na ne kon jomi borom Daaru Muxti dem na fépp dem na ci taalibeem dem na ci ay doomam dem na ci ay sëtam dem na ci ak njàmbaar ga tim tisaaroo na fépp kon yoonu wi ngeen jaar sëriñ bi nee fépp fu fi dereti borom Daaru Muxti nekk taalibe borom Daaru Muxti nekk fa na nga doon exemple te lii bu fekkonte ne tey ji da ngaa bokkoon ci gone yi sam xel du ci nekk ndax bari naa ñoo xam te ne tey ñi ngi sant Mbàkke am at yi nga am seen i mbir nga ca leneen seen i xemmeemteef nga ca leneen waaye xalaatuñoo samp lu mel nii xalaatuñoo dox ci lu mel nii kon ñu ngi lay sant di la gërëm ñun ñii di say magit jóge Daaru Muxti ba ñëw fiitim ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom may la fan wu gudd wa ànd ko wér ba li nga yéene liggéey sa baay sa borom may la kàttan nga def ko ni nga ko bëggee ak sa maam ja barke borom Daaru Muxti di ñaanal taalibe yépp ñi fi teew ci dëkk Louga ak ñi fi teewut ñëpp saa borom dafa leen pajog aajoog àdduna dafa leen pajog al àlaxira tey màggal gii nu jëm it na doon màggal yi dàq ci màggal yi ci barkeb Serigne tubaa yal nañu yàlla may fa nu gudd wa ànd ko wér te ndaje ngërëmal Serigne tubaa maa ngi jéggulu kàddu yi di jéggulu lépp loo xamante lu ci dëng la nañ xam ne ci nun ñii la waaye xañ na yéene kàddu njaboot gi diis na diis goo xamante ne nii ñoom nañ ko bëggee mënuñu ko waxee noonu waaye nag yàlla mi nga xamante ne ni mooy am jàmm yàlla nañu ko may yàlla miy sàmm yàlla nañu sàmm di sant sant sañ sëñ Moustapha ni mbay Guèye si la waxee ne maanaam tey jii am nga place ca micro yenn yi nga xamante ne nii ñu ngi koy def ci Daaru Moxti loola moom ñi yor organisation bi xam nañu ne Daaru Moxti nga dëkk xam nañu ne talibé Thierno nga yaakaar naa loola moom déggees na message boobu te ñi koy organiser it danañ bàyyi xel loolu yow na la yàlla sagal jàppale la ba lépp loo xamante ne ni sa maam doon na ko def ci borom Daaru Muxti ànd ak moom yàlla may la kàttan googu ak xel mi ba nga eggale yéen a jooju ci barkeb Sëriñ Tuubaa di sant mboolem presse bi nga xamante ñu ngi jàllale wax ji te xam ne ñoom it am nañu aw sasu metti ndax jamono jii moom doon presse metti ne lool ndax képp koo xamante ni yaa ngi organisé di jàllale ay message ngir sa organe dox faw nga jëm ci wàllu adduna wàllu po yenn organes yi ci des li ci ëpp duñ ko seetaan. kon nag difficulté yi ngeen di jànkoonteel yéen it te yàlla rek tax ak diine yàlla leen yàlla téel boppam diine téel leen boppam ba yi nga xam te ñoom ngeen di concurrentanteel sunu borom may leen kàttan gu toll noonu ba ngeen mën a jëfal lislaam ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu ngi sant taalibe yi liggéey yëpp di leen ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa tax borom kàttan na leen jàppale leen taxaw leen ba li ñu def ren bu déwénee mu ëpp fi barkeb Sëriñ Tuubaa waaye la yóbbu ahmadul makki yoo del ndesi yóbbu ahmadul makki su bàyyi sunu maam cerno ibrahima këlee di xaadim ci lay maxdum yooyu le yaari xew wi le ko yetteel fa daarul muxti xew wi af ki ala seydi ma jooy le suuf ibran awa أبكي على خليل إبراهيم مدى النجال أسمى قديما